seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan te ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci terrain gaal gi ki ñu fi woo di roi des arènes di Manga Production woo ñu fi teg li traditionnel mise bi mu ngi toll ci gis nañ fi ay xale yu bari yoo xamante ni war nañoo wane seen bopp gis nañ ci xale yu bari yoo xamante ñu ngi ñëw ci compétition bi ngir gën a wane waat seen bopp ci wàllub làmb mbokk yi kon noonu lay demee dañuy dugg ci biir wan leen lépp loo xam ne xew na fi ci cosaan ci ambiance ci lépp. tey ñëw fekk maa nga fi ci gala mu décoré ñaari grand fanu ñaari grand avocat ñaari grand maître maître Ndiogou Ndiaye ak maître Ahmed Ndiaye nekk ay avocat émérite di barreau du Sénégal ci avocat yi gën a ràññee Sénégal ma leen di ndokkeel seen bés bi di leen ñaanal yàlla may leen wëral ci lii nag kenn du ko wax

à terrain gaal gi. merci beaucoup Manga merci merci beaucoup. waa ma ne loo wax ci lii. Manga doo décorer tey jox la ser bi xam mooy seru cosaan ser bi kuñ ko jox xam nga ne raw nga say morom ndax seru jàmbaar la seru garmi la waaye ser bi nga xam ne da lay aar côté bu wax tey. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. li ma wax léegi fee rek lay répété man nga ba ma nekk xale mu nekk grand champion ma koy supporté mu jaral ma ba may xeex adduna di dox di dox ba ñu tase CNG bokk fa di liggéey mu jël ma def ma xarit def ma rakk di ma won mbir yi ni muy demee ba tey mu ñëw tudde ma drapeau te defaruma ko dara moom moo baax maa ngi koy sant di ko gërëm li ma defal tey li mu ma may dafa delloo ci sama cosaan parce que man caajaay la dëkk séeréer sama yaay séeréer la donc dama ma fàttali sama cosaan maa ngi ko ciy sant di ko gërëm lii nag am na lu muy tekki mais mënu ma ko wax tey mais bu ma demee naa laaj sama yaay lan la mais xam naa ne rëy la maa ngi ko ciy sant di ko ñaanal. yàlla nañ fiy toog di toog ba tëgg ba tëgg vingtième drapeau fii tey incha allah yàlla nañu ko yàlla may. séeréer defu. waaw Jokalante Jalle Pogba séeréer defu. Jokalante Jalle séeréer defu. séeréer ba pare ma wax olof ma ne Manga 2000 ku jar a jàppale la ci réew mi parce que mu ngi dimbale xale yi parce que tey jii lu ma téeméeri xale bëre nañ fii da leen di tere ñu dem géej ñu dem ci bato yi wala ñu def naka sudul noonu parce que xale yi lamb lañ bëgg lamb lañ am te amuñu fuñ ko defee moom mën a organiser lii ba nga xam ne xale yi dinañ ci gis seen bopp dëkk bi tamit ñëw seetaan dégg bëggal seen xol ba pare dellu cosaan. Ah, Cheikh ñu jël pause ñu jël pause. Abdou Bello Abdoulaye Ngom Ousmane Senghor Abdoulaye Ngom Ousmane Senghor Ousmane Senghor Abdoulaye Ngom lamb yaay doxala dégg nag le terrain ak a ak le stade municipal pour le très grand gala de lutte traditionnelle bi nga xam ne moom mii vice président chargé de la lutte traditionnelle yëkkati ñu waaw yëpp xam ne xam nga cosaan moom xam nga aussi waa Parcelles am na fi nga jërëjëf jërëjëf merci merci merci pour toujours merci. merci jox ko njëkk. Diop Kañal. Diop Kañal ma nga boo. ndaysaan ba tey ñu ngi terrain gaal gi Boy Faye ak Cheikh Diagne Cheikh Diagne féete leen càmmoñ Boy Faye daw na jëli ko Cheikh Diagne na ko day daanoon déet yegg nañ suuf Boy Faye fàqan na ko war na ko ndombo Boy Faye war na ndombo Cheikh Diagne ndaysaan Boy Faye war na ndombo Cheikh Diagne Cheikh Diagne da koy deuxième pied wala déet Cheikh Diagne dina rëcc dina rëcc taxawal ba Cheikh Diagne nar naa rëcc Boy Faye waraat na ko ndomba <laughs> Cheikh Diagne Boy Faye yegg nañ suuf Cheikh Diagne bu ci génnee Boy Faye du neex a daan yegg nañ suuf ba day deuxième pied lii xeeñ Boy Faye daan na Cheikh Diagne Boy Faye daan na Cheikh Diagne daan na ko xoolal ki ànd ak Boy Faye nee na ko c'est bon Boy Faye tànk ba ngay métti wala déet est ce que gaañu ci sonu gaañu na ci sonu Boy Faye gaañu na ci sonu ndeysaan da gaañu na Boy Faye gaañu gis nga ma ngay soox ma ngay soox Mohamed Bousso daan na Cheikh Diagne terrain gaal gi Manga Production moo ñu fi woo. at bi baa ngi sifflé ñaari xale yaa ngi noonu ci géew gi. Ndeysaan xale bu la féetee ndijoor ak xale bu la féetee càmmoñ Ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi ci terrain gaal gi. Ndeysaan la roi des arènes moo ñu fi woo muy Manga Production. tegal xale yi deux millions lu teg ndaysaan bu ñu nee deux millions lu teg ñii dañ naan mbaa tegul deux millions cent man leen déedéet ñu ne ma bàyyi ji li mbaa tegul deux millions deux cent man leen déedéet ñu ne ma bàyyi ji li président Manga lancer roi des arènes mbaa tegul deux millions trois cent ma ne ko déedéet ñu ne ko bàyyi ji lu mu teg man leen teg na deux millions cinq cent moo tax xale yi ñëw nañ gar ci seen bakkan fas yéene woon seen bopp bu dee doomu ñëw nga loo am yóbbu ñëwal bu dee doomu géwél nga bu dee doomu lawbe nga loo am yóbbu ci lawbe ga bu dee doomu séeréer nga loo am yóbbu ci séeréer si doomu lebu yóbbu ko ci lebu ya loolu mooy làmb xeet gu ne ñoo koy def waaye xeet gu ci ne bu bëree nga mën nga identifier ci kii ci ban xeet la bokk ndeysaan boo gisee suñu papa Fallay Balde yàlla ko yàlla yërëm taxare ko àjjana na mu daan bëree ba jël séeréer sëru rabal ba ndeysaan wala sëru mankaane ba wala sër ba def ko ci ginnaaw boo xalaat suñu papa Fodé Doussou Ba bu ngëmboon ba pare na mu daan def ci làmb <laughs> ndeysaan nga dem ci Ama Baldé gis ngëmb la muy ngëmboo nga gis Modou Lo la muy ngëmboo nga gis Ama Sène ngëmb la muy ngëmboo ba ca Yaxya Jóob Yékini ñoo ñooy mbëru làmb yi Balla Gaye 2 ndeysaan am na xale bu jàpp fële ña ngay jàppante waaye combat bi yàgg na ba tey oh booy jël nañ sa tànk déet la ilaha illallah ay booy loo def nii ndeysaan ñool waaw waaw

léger oxu maafna to oxu yerna oxu yerna o gar xotin xaalis of quart de finale poids léger Mbaye Diop chaque marone Mbaye Diop chaque marone quart Ndom ndeysaan Bas Ndong xam nga Bas Ndong Bas Ndong Bas Ndong xam nga ko mooy xale bi ko drapeau chef de l'État bi ndeysaan nga dégg mbëri ay bas dimbali ñu rek bul wax dara li lay xeebee <laughs> araf tumay ko bas bas daal na am ndiru turam ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu jàppante ba tey ndeysaan le grand tambour major Momo Ngom ma ngay yëngu di yëngal baabu nga may sa baay boo tëggee tëgg na boo tëggul tëgg na da ngaa war a tëgg ndax xaalis yi tëgg lañ la ngéntee ay waay làmb ndeysaan ay waay làmb wóor nañ génnee ma xam ne mbir nga ay waay ay waay daan nañ ko jëlu ndeysaan mbokk yi Gaskel Tàmb moo la woon ginnaaw moo ngem moo ngem la gos yi ndaanaan la ci làmb bari na ay compétition yoo xam ne ta ci wane boppam mu ngi toll ci compétition bi ba tey Gaskel Tàmb moo leen woon ginnaaw ndaysaan mu ngi noonu moom Gaskel ki muy bëre laa xamut mooy kenn xanaa ma tuddee ko Adama rek sama caméraman bi ndeysaan oh xale bee daan na jël bu rëy gaskela ngi topp ci koom ndeysaan ndànk rek ndeysaan gaskel génne na ko géew bi Adama ñu ngi toll fii ci wàllu wi ñu ngi ci quart de finale poids léger yi diggante Baye Fall ndeysaan Baye Fall nag la tuddee boppam mu ngi bëreeg Zack Maroon ndeysaan ndeysaan Zack Maroon Baye Fall ci quart de finale poids léger bi ndeysaan Gaskel jàpp ngemba ngemb Lagos li ko muy bëreel ngemb ngemb lu weex jàpp na ko Baye Fall Baye Fall daan na Zang Maron Baye Fall daan na ko jël bu rëy Baye Fall daan na ko Gaskel Jammeh ñu noonu booy bi daan na de Baye Fall ba dem na demi-finale Baye Fall daan na ko ndeysaan Gaskel Jammeh ma nga ca combat bi ba tey Gaskel fàqat na ko génnaat na saako yi adversaire bi dina dem na demi ndeysaan ndeysaan ndeysaan Gaskel jàpp na booy bi muy bëre daa ndeysaan ndeysaan Gaskel jàpp na génne waa na ko saako yi trois avertissement Gaskel jël na ndam li waaw waaw Gaskel Diané jël na ndam li boo génnee ñetti sotti da ngay ñàkk làmb ji ñett Gaskel Diamé ndeysaan ndeysaan ñu ngi ci quart de finale poids léger Ama bu Yaraax ak Bas ndeysaan Ama bu Yaraax moo la woon ginnaaw Bas nag xale la boo xamante ne ndaanaan la ci làmb rawatina ci lutte bi mu nekk wàllu bee yaa ngi am Cheikh ak Mbaye Tine ndeysaan Mbaye Tine doo ak ak Cheikh Ndiaye ñu ngi ci quart de bi Ama bu yaraax ndaysaan ak Bas ndaysaan Bas nag xale la boo xamante ne Cheikh Ndiaye daw na jëli Mbaye Tine Mbaye Tine numéro 2 Cheikh Ndiaye jël na ko Mbaye Tine tëru na ko ndaysaan Mbaye Tine ndeysaan mu ngi noonu ñu ngi toll ci quart de finale poids lourds yi ndeysaan Cheikh Ndiaye ak Mbaye Tine Bass ak Ama bu Yaraax ndeysaan ñoom ñaar ngi noonu Bass lu xonq walla ginnaaw Mbaye Tine faaxan na ndawtin boobu baaxul pour man la dalee ci daan di ko bàyyi taxabal na ko buddi nañ ba ci kaw dinañ ko samp wala déet ndawtin bañ na ay eh, xale bi daa décidé ah ndawtin mi décidé na ah fi ñu ko yegg mbër mi fa yeggoon nga daanu xale la boo xam ne na ama bas buddi na ay bas fu mu gëm moom. ay ama dina bañ ama bul nangu bas ndaanaan la waaye bul nangu ndeysaan ama bul nangu ama bul nangu ndeysaan fee ci wàllu wem mbaytin a oh, waay xam naa géew gi plateau fi nekk waay booy fay ma nga ca ba moom it ci quart de finale yi ndeysaan xale war na ndomba daan na moom it waaw waaw. yaa ngay dem. bi ak Baye Fall dem Mbaytin jongale na. jongale na booy bi Mbaytin. Mbaytin fi mu jàpp baax na. caxabal Mbaytin daan na ra daanu. Mbaytin daan na jël tey daa décidé Mbaye Tine numéro 2 tey daa décidé Boy Faye jëli nañ ko ndeysaan xale ngi nii bas dem na ma ngay jëli bas ma ngay jëli Boy Faye dina daanam déet daan na Boy Faye daan na Boy Faye dem na du ñu ngi ci quart de finale poids léger ba tey dox ci diggante Bass ndeysaan ak Ama bu Yaraax Ama da koy jaare kappa wala Bass day bañ <laughs> en tout cas Yaraax kappa moo ci tegu ba ma nekkee xale noonu laa ko doon moo tax Ama bu Yaraax buy bëreeg Bas dañuy xool ñoom ñaar fu mujj ndeysaan làmb ngi làmb ngi Bas tey yëpp na client boobu yëkkale fenn ma ne ko Bass tey yëpp nga client boo du yëkkale waaw wane ci quart de finale yi ndeysaan bi xale yi duñ maye dara ndeysaan boo xoolee bas ñu ñëwoon drapeau chef de l'État ak bas bi nga xam ndaysaan booy ki ngay topp sumo comment la bëre man arbitre bi nee na ko taxawal ndaysaan xale yaa ngi noonu ba tey ci compétition bi mbokk fii ci terrain gaal gi ndaysaan lancé roi des arènes Manga 2 Manga production moo ñu fi woo Bas jël na Bas jël na buddi na Bas bul forcé forcé bi nga koy forcé gënu ci yow Ama xam na la ndeysaan Ama ak Bas ñu ngi ñëw suñu kaw cey mbëri daw nañ jëli ko làmba ngi ndaysaan xale yaa ngi noonu caxabal jël na ko ndaysaan caxabal daan na ko waaw waaw ndaysaan am na xale yu dem wala doxul jàmm ñaari xale am ku ñu jàpp fële mbot maa la ko wax yegg nañ suuf eh yegg nañ suuf ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu na ku daan ndeysaan waaye demi-finale bi yàgg Bass ak Kane ndaysaan Bass taxabal na ko Ama bu Yoff wala Ama bu Yaraax ak Bass Ama bu Yaraax ak Bas ndaysaan dégg ndaysaan ñu ngi noonu ñu ngi noonu ndaysaan Ama ak Bas ñu ngi noonu Ama ak Bas ndeysaan Gaskel Jammeh ak waa Gaskel kan lay bëreel noonu quart de bi ndeysaan ñu ngi noonu nañ ba tey ndeysaan jàppante Franc bu Yaraax ak Bas Ndeysaan Ndeysaan Ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu jàppante ba tey <laughs> caxawal soxala na ko door waaw waaw xale bi bañ na bas tey naru koo dara waaye ama mi ndaanaan la ndaysaan taxabalaan na ko mu cëpp ndaysaan ñu ngi noonu eh, xale yaa ngi noonu temps jeex na ñoom ñaar ñi ku ci daan mbaa doo am Mbaye Tine numéro 2 mi dem Gaskel Diamé ngi noonu ci wàllu quart de bi mbokk yi Boy Faye dem na demi-finale Gaskel Diamé ngi noonu ci compétition bi. Ndeysaan Ndeysaan waaye lu mën a xew mooy climat bi tey Goré Gaal gi nax nañu damaa yaakaaroon day tàng ma sol t-shirt waaye seet bi damay ngelaw li damay ëpp ma damay mujjee ëbbali ndeysaan gaa yaa ngi noonu Ama bu Yaraax ak Bas ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi ndeysaan ñu ngi jël nañ gaskel laay gaskel daan na gaskel daan na ndaysaan bas daw nañ jëli ko daw nañ jëli bas ama na ko cëpp na xaw ma lan moo leen di départager <laughs> bi su woon na yaa ngay dal vite fait bien fait proprement fait <laughs> waaye ngi bas ndeysaan basa ngi noonu ndaysaan ndaysaan ñee ñu ngi ci ka ba tey ñoom xale yi ci quart de finale la daan na ko wala booy ba bañ na ba saxabal na ko dañuy dem yegg nañ ñaari xale yi ay ndaanaan lañ bëre nañ ndaysaan lii mooy bas xalabaan na ko booy bañ na daan na bas daan na bas daan na <laughs> réer la xale bi wéyu la waay wéyu la gaañu na ndeysaan gaañu na dama ci la jël na fàqan na ndeysaan wàccaat nañu yéegaat ndeysaan ñu ngi noonu Ndeysaan Baye Fall la ngay génn saako yi Ndeysaan Ndeysaan wàcc na ko kàddaa bi am na wala déet Ndeysaan Baye Fall jàpp na ko wet Baye Fall ñu wër na ko ndomba daan na ko kat api am na daan na daan na daan na ñoom ñaar ñu ngi noonu ci compétition bi. Alaay ak Boy Faye. Boy Faye daw na jëli ko laay bañ maa dina yomb ñoom ñaar ci demi-finale bi ndax ku daan da ngay dem finale diggante Gone ak Ndour gi ak Mamadou Gaskel Diané wulli am na problème Adama Diouf kàttan gii ma gis mu yor macha allah <laughs> bu jàppee wulli bu ko dablu rek ma xam ne. lépp dëgg la ñu ne xaw ma foo ne waaye bu yóbboo loo mën entraîné ko Adama Diouf mi ma mu ngi ci état de forme bu garaaw waaye te nag wax dëgg wuli sama xarit la Boy Faye daw nañ jëli ko dinañ la daan Boy Faye dinañ la daan daan nañ ko daan nañu ko daan nañ ko Mbaye Tine gàtt na ko gaskel ak gën a nguur bi doon na ko filaas mu bañ gaskel jëli na tànk bi da koy plaqué ma bañ na du yomb ñoom ñaar tey du yomb ku daan dem final du yomb deux millions cinq cent kan lay fanaani këram boo melul ni commando tegg na te 600000 maye ko ci koñ ba ba mu jeex <laughs> kon commando daa yóbbu sa fit bi man may na ma ci junni te daan ma jëlal bu ma ci sant bu ma ci gërëm xaalis la commando le grand champion gaskel jàmme dégg nga mu ngay nee na da mat mat na ko disqualifié nañ ko kaam Franc noonu di bàkku ndeysaan démb moo daan jël bu rëy ndeysaan Franc ndeysaan ma nga noonu daan na jël bu rëy démb ndeysaan am na ku koy dëkk am na ku koy dëkk ndeysaan am na kuy dëkk Franc dëkk na ko ndeysaan mbaytin xale bi wéyu la bul ko may dara boo sigee rek mu tegal la seize mooy tul ndaysaan ñu ngi coono temps bi jeex na Bass day jël ndam li Bass dañuy jox ndam li waaw waaw arbitre bi ngi noonu di waaj a siffler final poids léger jàpp nañ Bass daan nañ ko wala déet ñàkk na bas ñàkk na Baye Fall daan na ko daan na bas jël bu ko bett daan na ko jël bu ko bett Blaye Ndong wala ak Mamadou Gaskal Jammeh naa nu mu ko sànni léegi Ablaye moo leen féete càmmoñ Mamadou Gaskal Jammeh moo leen wan leen ginnaaw Ablaye jàkkaarloo ak yéen final fii tey ci terrain Gaal gui moo ki nekk dimanche 20 juin 2021 journée Manga moo ñu fi woo tegal xale yi 2 millions 500 final poids lourd baa ngi na lu mu tari. ci kanam gi raay ci loxo yi Gaskel Diame kenn du leen ko waaye Ablaye mii ndaanaan la moom ndax depuis compétition bi commencé ba tey mu ngi def ay preuve moo éliminé Boy ci demi-finale bi dem finale kon lamba ñu nii ndaysaan ñu ngi noonu Gaskel Jamme ndaysaan Ablaye daw na jëli ko Gaskel karu ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngay lewaatoo du xoolante ci bët final kenn du ko caaxaane ku ci nekk day jox moromam cër jum compétition bi laaj arbitre bi àtte na Gaskel am benn avertissement su amee ñaar day perte compétition bi Ablaye amagul benn avertissement kon ñoom ñaar ñu ngi ci compétition bi ba tey may nuyu waa France di nuyu waa Italie di nuyu waa Espagne su ma nee Espagne nag damay taxaw nuyu sama xarit ba Babacar borom Espagne ndaysaan di nuyu maam Cheikh di nuyu soxnaam ndeysaan arbitre bi àtte na avertissement Ablaye avertissement deux ndeysaan luy xeeñ narta neex de Gaskel Jaame ak Laay ak Ablaye mi comme nara mujj neex ndax Gaskel am na deux avertissement su doon maay laay dama koy génnee ba damay arrière ba jege saako yi taxaw bu Gaskel ñëwee rek ma buux ko mu génn saako yi perte compétition am ko defee laay jël compétition bi boo amoon staff bu baax gis nga jëli na ko balay jàpp laay dina la daan wala déet Gaskel jàpp bee ko arrangé. laay sol na gaskel jàmme laay sol na gaskel jàmme tegal na ko siis mot na ko laay dina ko daan wala déet gaskel bañ na laay mot na ko daan na ko laay daan na gaskel jàmme réew na Ablaye daan na Gaskel Jàmme kaay Adama kaay mu mel ni tey dañu gis beneen laay bu ñu xamuloon lan la. sant yàlla rek affaire moom compétition la rek kese du leneen quoi. daan booy fay. teg ci Gaskel Jàmme bi ngay bëreeg moom yaakaaroon nañ ni doo bu la yeggee fu sori dina la daan ni nga bëreeg moom ba daan. non man amul ku ma mënul daan. lamb dooroo rek yàgg naa ñëw di per te man la ko yàlla jagleel sant yàlla baax. dugg nga ci arène. non mosuma am combat arène. looy xaar gars yi nag ñoo ngay daw na jël avance bi bokk ñan ñooy sa morom ci lamb waaw ah, xam nga ko posé naa la question bi. noonu la demee nag. saan xam félicitations vous l'avez fait ñu jox vaincu ba pare. waaw voilà waaw. waaw. voilà vainqueur voilà félicitations félicitations voilà. Euh, jërëjëf mbokk wasaare lamb gis ngeen loolu xewoon ci li nga xamante ne mooy terrain gaal gi euh, journée Manga Production doxoon ci diggante xale bi finalu muy révélation bu bees di xale bi nga xamante ne mooy laay euh, tey moom moo finalu jël pois lourd bi ci kaw Gaskel Jàmme ni wax ni compétition noonu la li mooy lamb parce que ay xale lañ yoo xamante ne saa suñu ñëwee rek dañu wane seen bopp xale bi di laay nag wane na boppam ba jël li nga xamante ne mooy compétition bi ñu koy félicité bu baax beneen révélation bu génn muy tax muy laay ñu koy jaajëfal félicité bu baax mbokk yi kon di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba ëllëg si beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf.